asalaamaaleykum mbokki internet yu wasaare sport dal ak jàmm et bienvenue dans votre revue sport fu ñu koy doore mais xale bi nga xam Sénégal ñëpp content si mom, mais muy kii di fayeen di Mikayil Fay, mi nga xam xam ngeen ni temps yi yëpp yéen ko équipe nationale yu 17 yi nga xam mu nekkoon euh, défenseur central bi nga xam ne ñu bëri la si bàyyi woon xel tay nat mu nekkoon fële Grèce démb waa FC Barcelone ñoo ko signé maanaam fu mu toll nii signé na Barça gannaaw euh, doomu Sénégal yi nga xam ne ñu bëri signé nañ fa ku si mel ni Moussa Wagué donc Ndiaye Diokou ñoom ñëpp xam ngeen ni signé nañ euh, fii di FC Barcelone moom ne moo nekk cinquième Sénégal boo xam ne moom tamit signé na foofule en tout cas cinq millions d'euros la ko Barça jëndee parce que jàpp na ni. joueur la bi nga xam ne nii ba motul mun a nekk futur joueur Barça bi nga xam ne mën na te défense bi bu baax a baax en tout cas ñu koy ñaanal bu baax a baax bon vent euh, fu mu toll nii nag équipe nationale bu Sénégal xam nga ne ñoo ngi préparé seen match contre Brésil ak lii di Bénin waaye tamit dafa am ay quelques changements yu si am parce que boo xoolee kii di Moussa Niakhaté moom dina quitter tanière bi pour maanaam dem fële si kër si clubam di Nottingham Forest pour régler avec quelques, avec quelques affaires. Mais après, avant Machibi, Inch'Allah, je crois bien que le 15, Inch'Allah, de, de soit euh, Fofu Sitanière, pour me continuer euh, l'entraînement, ouais, pour me a contre Bénin di dem si affaire mercato xam ngeen ni Chelsea fu mu toll nii euh, Koulibaly neex la fa trop trop parce que ni kii di Pochettino xam ngeen ni moom bëgg na conserver kii di Kalidou Koulibaly même fekkee am na match yi nga xam ne perdoon na ko euh, manque de jeu amoon na ko waaye tamit fu mu toll nii dafa mel ni tamit waa Arabie Saoudite ñoo ngi ñoo ngi def maanaam fexe tout ba kii di ku Koulibaly moom daal di ñëw foofu comme ni ko Benzema defee wala kii Ronaldo wala kii di Ngolo Kanté mercato ba léegi xam ngeen ni Habib Diallo bokkoon na si attaquant Sénégal yi nga xam ne ñu bëri ñoo koy bàyyi xel fu mu toll nii loola waral club yi nga xam ne surtout club anglais yi ñu bëri ñoo ngi koy suivre euh, trois club anglais yoo xam ne club yu mag la. bëri ñoo ngi suivre kii di Habib Diallo pour déwén incha allah ñoom tamit ñu mën a ñëw foofu si Angleterre waaye xam ngeen ni tamit euh, kii di Jacob ak Sabaly yi ñoom tamit euh, ñoo ngi doog ñëw démb waaye mu des kii di Elimane Ndiaye mi nga xam ne tamit Sénégal yi bëri ñoo koy xaar ak kii di Gana Gueye ñoom ay problème personnel moo tax ak see guñ waaye gëm naa ni tey wala suba wala avant match kii di Brésil incha allah ñoom tamit. dinañ ñëw Sadio Mané waa Real tamit ñoo ngi bàyyi xel la Nacho notre Nacho notre héros notre champion d'Afrique Sadio Mané xam ngeen ni gannaaw bu mu nekkee fee sa Bayern ñuy wax ne déwén ba moo tuur du fa jouer même fekkee y a des rumeurs yu rumeurs yi nga xam ne nii. ñoo ngi wax kii di Sadio Mané moom dafa bëgg rester Bayern pour mën a confirmer maanaam lépp li nga xam ne wala alal bi nga xam ne defoon nañ ko si moom waaye dafa mel ni Real Madrid ak lii di waa Arabie Saoudi ak Chelsea ak lii Newcastle ñoom tamit ñoo koy bàyyi xel bu baax a baax mbokk internet yi Wassare Sport li leen leen tey seen biir rubrique revue sport di jox dig daje suba incha